mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen jaar di leen jaajëfal bu baax a baax ñoo ngi fii tey stade amitié euh, fekk si fa ay mbër yoo xamante nii tey dañoo ñëw def benn formation mais dama leen di bàyyi ñu nuyoo expliquer ñu naka la formation de laasana nuyu naa waaw mais maa ngi fay di la nuyu di la sant di sant sa caméraman bi di wax ne tey formation bi du ñoo jox kaasu kafe la ñu jox mais am na ñoo xam ne maanaam gis nañ ne affaire daal maanaam lu intéressant la parce que mbër bu nekk waroo yem ci takk ngemb dem bëri kese war nga am leneen loo xam ne da ko war a def muy maanaam am carte professionnelle parce que tamit da ngay dégg fu coow amee rek duñ siy tudd mbëri maanaam da ngay gis mbëri ñu jël leen bëgg leen fay yenn somme yi maanaam ñuy dem ci loolu te xamuñu nan lañ siy demee mais su yàlla defee tey nga jàng lii ba am ba ba ba nga xam ne yor nga sa euh, diplôme doon garde rapproché maanaam tey yenn yi suñ la si buggee dugal doo ci dugg waaw yenn yi suñ la si bëggee dugal doo ci dugg. moo tax tey fi mu nekk nii gis nga fi ay Quench ay Neko Rell xam nga ay Eumeu Sène Junior xam nga ay Ousmane Comment suñu grand frère ñëpp ñu ngi fi ñun daal du ñuy ñaan yàlla ñu e dugg ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko alhamdulilahi rabbil alamin te bakkeen bañ see rot lii nag grand dama la dee yombul dee maa ngi fi ñu gis la ngay préparer combat tey nga ñëw nekk fi def euh, formation naka la mën a demee waaw mais santal yàlla rek maa ngi koy wax sànq laa sana ma naan ko affaire bi préparation combat la xam nga parce que l'affaire la bu nga xamante ni lii dafa garaaw dafa doy waar ñu nekk en famille nii ay adversaire nekk en famille dafa neex xam nga dañuy ñaan yàlla suñu borom commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggal ko ci ñu mën a wax daal mooy comme li laa sana wax bu bakkan root parce que affaire yi métti na trop intense na café Touba lañu ngeen commencé waaw tey lañ jox dañu safarloo xam nga da safar loolu dafa gën a. daal laa jëw nuyu naa nuyu naa. waaw fay na la yàlla si fay na lu baax. gis nga nekk ci préparation combat ñëw fii ci ci formation bi. Euh, lan lan waaw ñu gis la nga ñëw fii ci formation bi naka nga ko na waajee ak préparation combat. waaw préparation combat nekkoon nañ ci bu yàgg. nekkoon nañ ci combat bi nag mais dañuy rafetlu initiative bi. parce que mbër xam nga rek mbër mbëri bëri bëri daanaka amuñu liggéey. te lii boo ko defee pour man da lay apporter lu bëri quoi da lay apporter lu bëri bëri parce que comme garde rapproché la boo boo bëriwul mooy dem di garder le projet te ñun dañuy pare combat te yaakaar naa lii rek lii rek dafa métti. jógu waa lii préparation la. mu ngand sax waaw. <laughs> waay. nuyu naa. ñoo ñëw fii ci ci formation bi naka la naa dem. waaw mais alhamdulilah sant yàlla parce que yàgg nañ ko bëgg a def amuñu opportunité bi tey bu ñu yàlla ibilee opportunité bi tamit pour ñu ñëw def ko. tamit euh, ma siy nuyu ku mel ni grand tamit parce que ah Fatso tamit ma ngi ko nuyu parce que lépp à cause de ñoom comprendre nga mais tey bu ñëwee fii dañ ñëw bu sàkku fi xam-xam parce que da ngay ñu naan mbëri ay nervi lañu comprendre nga kon tey bu la yàlla dimbalee nga am gar nga nekk garde rapproché am garde professionnel yu bëree bëree bëri duñ si dugguti te man loolu laay xee guddi bëccëg mbër warul jóg di dem di xee wala sànni xeer mbër xam si lañ ko xamee koñ bi di tàkk mu jóg rek koñ bi comprendre ñun buñ déggoo si garde rapproché mooy pour bëgg ñun suñuy rak ak suñuy gaañ yi nga xam ne tey dañu xam ñu ñëw def ko parce que ku si ne bu amee carte ku si nekk a yombal affaire yi day gën a tax kenn ku ne mën nañu bëri di ñaan sax comprendre nga mën nañu bëri sax sans arbitre parce que kenn ku nga respecté sa morom parce que fii respect rek moo fi daw may nuyu bari ni yëpp di leen woo si appel bi tamit di leen woo ngeen ñaanal ma yéen ñëpp lan ngay wax mbër yi nga xamante ni teewuñu teewuñu te amuñu liggéey waaw mooy ñu ñëw rek parce que tey ñun yaakaaruñu yaakaaruñu làmb kese te tamit yaakaaruñu lii kese tey ñu ngi bay suñu waar si làmba ji comprendre nga bu ñu demee ba mën a ut dara rapproché ñu ngi xalaat suñu fin carrière comprendre nga parce que adduna kenn xamul nan la yàlla yoo yàlla ba comprendre nga lu mu métti métti mooy da ngay am loo xam ne da ngay garder si suuf bu làmba taxawee nga dem si loolu comme xulu covid bi lañ bëri niñ sonne comprendre nga xulu covid bi lañ bëri niñ sonne parce que amuñu fu aw comprendre kon bu amee opportunité bu toll nii Bamba Mbuub di ko def nañ ko saluer di ko wax ne état mu jàppale ko gunge ko te xam ne lii muy créer ay emploi quoi comprendre may ñaan lancer appel état bi mu jàppale Bamba Mbuub ak ñi mu àndal ñoom ñëpp comprendre nga di wax gars yi maa leen di siyaareen ñëpp. defe naa ne laaj nga ko sumay rak ku ci mel ni Koulibaly wax na ko euh, Eumeu Sène Junior na ko Laasana wax na ko euh, Neko Rell wax na ko. mooy rek ñu jàpp te bàyyi mbër day am métier loolu rek laa ci doon yokk mbër day am métier te loolu lu am solo la quoi mbër dafa war a am métier. kontaan nañ ci yow. maa ngi fi ak ki nga xamante ni mooy waa Kaolack maa ngi fi ak Nitdoff ak Siteu ngeen déplacé wu jóge ba Kaolack ndax euh, formation bi euh, est-ce que dina yomb déplacement bi. non déplacement bi mënut a yomb parce que xam nga Kaolack ak Dakar dafa xaw a sore quoi comprendre mais. lii nii moo lii moo lay wane la sport day boole quoi parce que ñu ngi ñëw nekk fee ay yeneen champion yoo xam ne ay suñu adversaire lañ mais liggéey bii nii moo ñu boole ñun ak ñoom xam nga di ko rafetlu bu baax di xamal gars yi ne leen tamit ne ku nekk war na mun a ñëw intégrer si formation bii nii quoi parce que non seulement mbër kese kese da nga war a am métier am métier bi mooy comme ñun mbër si garde corps la ñu gën a gën gën a xam dañoo war a def formation garde corps am suñuy diplôme mën métier bi tamit xam ko quoi moo ko ñu si demee doole demee si expérience quoi waaw. mais euh, ngeen jugee Kaolack ñëw fi da ñëw loger dem di dellu moo xam naa mënul nekk moom. non dañuy ñëw loger dañuy ñëw loose fii pour dix jours parce que d'habitude ñun fii la ñuy nekk di entraîné man maa nekk fii Grand Yoff écurie Père Diaw fa laa nekk di entraîné nekk ay ñoom mobile de gars yëpp xam nañ ma samay gaañ lañ xam nga fi ma nekk fii daal du pele ñaa mais ba. formation bi jeex après ñu dugaat Saloum quoi. Siteu nuyu naa la. waaw maa lay siyaar bu baax. Euh, ñu ñëw gis tey nga ñëw ci formation bi est-ce que yomb na. non yombul euh, mais ensuite euh, dañ koy rafetlu bu baax di féliciter ñi nga xam ne ñoo organiser initiative bu mel nii ñoo ko def. xam nga di leen encouragé bu baax aussi tamit di xam ne lii lu lu yokk lu yokk réew la quoi xam nga euh, jàpp say zone su réew di leen former di leen encadré xam nga. Euh, affaire bu rafet la daal ñun dañ ko rafetlu moo tax bi ñu ko déggee ñu woo ñu si ñu déplacé wu jugee ba kaw Kaolack bàyyi liñ jàppoon ñëw fi aussi pour def formation bi. di la ñaan rek ngeen yeggale ko ak jàmm ak salaam. amiin yaa rabbana. balaa ak jàmm. bëgg naa lu wér. ñu gis leen tey. Euh, waa équipe Balla Gaye équipe Fass équipe Pikine Parcelles Dóor Dóoraat ñëpp daje fi tey euh, ngeen nekk ay adversaire ngeen ñëw pour de formation euh, est-ce que est-ce que euh, maanaam ni ngeen ni fiire est-ce que loolu dina fi am seen diggante yéen seen biir. non loolu du ci am parce que tey làmb jàpp naa ni benn bis la waaw làmb moom ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay li gaay naan làmb yàggul. waaw moo waral lii sax ñu jóg def formation bi parce que ay avenir lan ëllëg te ay yaakaar lan suñuy waajur yaakaar ñu ñoom ay rak am ñoo xam tamit ñu ngi xool si ñun te ñoo ñu di xool si ñun da leen war a wan un exemple moo waral ñu jóg ni nan dem def lii def formation bi dinañu dimbali tamit ci yeneen étape yoo xamante ni ci daan jëm ci kanam. mais entraînement bi ngeen fi entraîné ak par bi ngeen daan tàmm est-ce que du ngeen ay jafe-jafe. non du ñu indil jafe-jafe nag parce que. soo ñu xoolee fu mu toll nii rek xam nga ni poids bi wàññeewoon ko quoi. parce que am na fooy toll soo amee combat ni nga mën a indi yenn poids yi mais soo ko amul moom am na euh, sa sant lim lay may mooy ko jarul ngay jël yenn poids yi. moo waral ñu mel nii ñu mel nii tamit pour formation bi tamit di ci ñaan yàlla def si réussir totale. ñu ciy bëgg sunu borom defal ñu ko tamit mbër yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi waaw ñëpp ñoo bokk ndoy làmb moom benn bis la man samay adversaire yi ma bëreel laa gën a nekkal xarit ko ñi ma bëreelul mooy mat daan wala nga daan ma ñëpp waaw parce que même ñi may compétiral simple su ma ko gis na ma ñëw nuyu la nga tooñante yow nga tooñ ma ma tooñ la parce que ñoo bokk ndoy ñoo bokk bàyyi làmb yàggul waaw per mbéy gi fi jóge ak per euh, per du ma lees rek war na wane làmb nii xam nga ñun ñoo war a defar lépp mu rafet quoi. waaw kontaan naa ci Mba ziar na. Ousseyn maa ngi lay delloo siyaar borom wasaare. yaa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla bu baax a baax. lan moo woloon sa teewaay fii. Ah, ñun de ñu ngi bàyyi ko daanaka ba Kër Massar di ñëw fii xam nañu ne li ñu uh, jox nii am na importance trop. da nga yeewu fajar jógee Kër Massar ñëw fii wala nga jógee parcelle ñëw fii. parce que lii rek moo lay wan ne làmb moom lépp benn la tey jii say adversaire nga fi dajeel ak ñoo xam ne bëree goo leen ak ñoo xam ne bëri ngeen ba pare. làmb yëpp benn la daal lii moom mooy woon ne lamb yëpp yëpp benn la parce que tey gis naa fi ñoo xamante ni dama leen doon dégg rek xamuma woon leen tey gis naa leen ak ñi ma doon bokkal ay groupe ñu bari gis naa leen fi tey lii moo lay woon moom dara lu ñaaw amu si lépp lu rafet la tey daal na mbër dafa am métier ndax euh, nit mënul dëkk chaque jour di ñaan nga am combat di ñaan combat bi jeex nga continuer di ñaan waaw waaw fii lii moom baax na trop parce que ñi ma fi gis ñëpp kenn ku ne da nga mën a man heure bi dama doon fekk du ma yeew wala heure bi maa ngi doon dem saal mën ngaa def lii ba pare jóge fii dem saal du la yàqal dara du la yàqal dara mbër mu ne dafa war a am métier gis nga nit moom mënoo dëkk ci dem may ma. comme que Kër Massar nga dëkk lan ngay wax jeunes yi nga xamante ñoo ne Kër Massar te yaakaar ci làmb wala yaakaar ne seen doole moo leen mën a may xaalis. xanaa di leen wax rek ne leen nag affaire bi moom war naa mën a yaatu di wax it ñi jiite dirigeant yi jiite fii ne leen affaire bi war naa mën a yaatu Kër Massar fii ba ñoom kewel tafaatin gaa yooyu yëpp ñoo dekk ak ñoom Mbaye Diouf ñoo bokk benn koñ bi di wax ñëpp ne leen affaire bi na yaatu quoi dirigeant yi na yaatu ñu dem bawol fépp dem fépp ci réew yi yaatal ko ba mu yaatu parce lii lu am solo la parce que lii rek nga fii rek nga mën a jaar pour wutal leen liggéey mais boo leen bëggee jox beneen liggéey bu dul bii du yomb ci ñoom parce que mbir moom kon ku ne yaa ma gën a xam te di dugg bureau nit tey bu ma ñëwee bu ma ñëwaatee ñaan la 5000 francs nga may ma. bu ma ñëwaat gannaaw doo ma gis. waaw du la gis damay ñëw nga ne ma nga nga ne nga ne booy jàpp damaa jàpp wala nekkuma fi. te loolu dafa metti ñaan dafa metti. wallaahi ñaan dafa metti. neex na daa metti. dafa metti dafa metti di lancer appel mbër yëpp. même ku bokkul ci formation bi sax nga dem wuti liggéey parce que làmb fi mu toll moom dafa war a am loo xam ne da nga ko war a jël teg ko ci wet gi mais entraîner récupérer ñëw tedd loolu moom yorul yoru yoru doxul loolu doxul di lancer mbir yëpp ne leen du ut liggéey parce que làmb li koy doxal du entraîner ak bëri kese da ngay ut liggéey nga teg ko ci wet bi Ousseyn man moom kontaan naa trop franchement kontaan kontaan nañ ci yow baax a baax. ñu ngi delloo ñëpp. maa ngi fi ak ki nga xamante ne mooy coach su écurie Dóor Dóoraat mais ñu gis la nga nekk coach tey nga ñëw bokk ci formation bi lan moo waral lool. non c'est que Ousseyn ñoo lay nuyu di la sant di ziar waa wasaare yëpp non formation bi dafa nekk loo xam ne dafa baax ndax nekkul da nga ci leen rek man à bu dul làmb ma dama yor sama métier bopp à di ko liggéey mais formation bi dama gis mu am njariñ ma dégg ci loo xam ne dafa nga jënd si dëkk bi nii soo amul yenn niveau yi yenn diplôme yi kenn du la nangoo jël te loolu tax nag ma jël ko xam ne xaar ma ñëw dugg si biir pour bokkaale ci formation bi ndax ñi ko na am ñi ko jikkoon def ñoo ko doon defee sama koñ inte kat ñu waxoon ma mais ba ma toogaatee gisaat deuxième vague bi ñëwaat ba ñu ñëw fi mu nii soo xoolee ci yoon ñoo nekk troisième vague xaw ma. moo tax sant yàlla la lépp di wax rek li di wax rek loo xam da koy yóotu ji mu sori la nga koy uti mu metti mais nga gis xam ne moo gën a jege te oyof ci yow da nga ciy jéem a dugg loolu rek a tax ñu dugg. lan ngay wax waa Dóor Dóoraat ñi nga xamante yaa leen jiite. non waa Dóor Dóoraat ñoom chaque jour li leen ndax lépp loo gis rek waxtaan la ñu ñëw tënk ko toog waxtaan continué waat suñuy entraînement ku nekk nekkaat fa nga nekk combat yi ñëw ñu continué liggéey loolu rek. kontaan naa ci yow. maa lay fay. maa ngi ci baax. lan moo waraloon tey sa waa maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Yaraax nuyu waa Pikine ba ma jógee mooy lool di gërëm sama mag sama grand caatu Yaraax ndax bu ma teewee fii grâce à moom la ndaxte vague bu njëkk bi ku ne xam na ne moom trois premières moom la woon caatu Yaraax Tidiane Faye ak Ama Ndaw yàlla dogal mu ne ma deuxième vague bi bëgg naa tamit nga dugg ci ndax man nag moom ñaan guddeeg bëccëg ñooy tëdd ñooy def lépp mu ne ma deuxième vague bi bëgg naa nga dugg ci deuxième vague bi yàlla dogal ñu convoqué ma ma ñëw di sant yàlla nag di ñaan ñëpp koo xamante ni def na sa yaakaar mu nekk sa réussite ndaxtu réussite rek moo ñu andi fii dama doon di liggéey kon tey bu ñu ma woowee fi am yaakaar moo tax ma bàyyi sama liggéey ñëw parce que sama di liggéey xam nga yor sama oto mais bu ñu ma woowee tey liñ naan daal wërsëg du tuuti daal fu ñu la woowee rek dama làmb foofu ba xam amaana moo tane ñu bàyyi lépp tey ñëw fii di ñaan yàlla mu gën si ñëpp képp ku fi yaakaar doon kii daal ko yaakaar la fi ànd yàlla bu yaakaar tas. waaw loolu la ñuy ñaan yaakaar bañ a tas xam ku fi def sa yaakaar rek yàlla yeggale ko ndax loolu lañ bëgg ñun ñëpp ñëwuñu di agressé si mbedd mi wala ñuy saagante wala ñuy dóorante dañoo ñëw pour liggéey ñu fay ñu suñu ñax ñu teral suñuy waajur loolu rek moo tax a jóg moo tax ñu ñëw fii xam nga koo bu amul jabar mu yeeg yaayam ak papaam ak leneen ak leneen kon bu ñëpp ay père de famille noonu la mu yaatu ñëpp xaj ci ndaxte ñun li ñu yéene suñu bopp la ñu yéene suñu moroom yi ndaxte am nañ ay xarit yoo xamante ni ñun ak ñoom benn lañ bu ñu yéene suñu bopp lañ leen yéene ku si mel ñoom sama sama sama ñoom saacees gars yëpp ñu ngi fi bëgg nañ job bi mais incha allah dina yaatu ku si yàlla boole rek di nga si bokk quoi di leen gërëm yéen waa Wassare Lamb ndaxte yéen mooy loolu bravo à yéen